bisimilah barke borom Touba asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi nuyu mbokki jullit yi di nuyu mbokki taalibe yi jiital nuyoo bi suñu xalif général des mourides sëñ Mouhamadou ko suñu mborom yàggal te wér te mboolem naal yi nga xamante ne bii mi ngi koy naalal Cheikhul ci dëkkam bi ak ci yoonam wi suñu borom may ko ci ay ndam yoo xamante ne bii mosu koo moy kenn. di nuyu bu baax suñu jëwriñ yi nga xamante ne bii lañ fi fekk muy ñoo xamante ne bii ku ne xam na ne liggéey bi ñu liggéeyal Cheikhul Khadim liggéey féete koo kaw ci dëkk bi ndax ku xam Serigne tubaa xam ne lislaam rek moo ko tax a jóg lislaam rek mooy yitteem te lislaam mënoo koo tudd te tuddoo ponk yi nga xamante ne bii mooy kenoy lislaam yi te loolu dara ëpp ci solo julli juróom te jumaam ji yi nga xamante ne bii moom la ko suñu mboroom defal meeku ci dëkkam bi bu ko jëlee teg ko ci ay loxo yoo xamante ne bii loxo yu wér la loxo yu sell la loxo yoo xamante ni yeeyoo nañ ko kon day mel la ñuy def day mel ni ñëpp lañ koy defal looloo waral kenn ku ci ne foo mën a nekk dangaa jàpp ne waa Muxaddamaatul Xidma mi nga xamante ne bii ñooy taxaw liggéey bu sëriñ bi ci jumaa ju mag ji ak yu bëri ci dëkk bi nga xam ne may sukoo lim waaye boo tuddee jumaa ji rek yóbbaale lépp ndax jumaa ji mooy xolub dëkk bi day mel ni la ñuy def wàllu ñëpp dañ cee nekk suñ digganteek ñoom nag du du ñaar lenn la ndax bu tarxiya ak muxadamaatu xidma boo ko bëggee teexale foo ci jaar rek sëñ Tuubaa ngay dalee ji kon day mel ñoom dañoo nekkal fii ñu nekkal leen ca daara ja looloo waral bi nga xamante ne bii euh, suñu jëwriñ si ñaatu jaañ suñu mboroom woo na ko ci wetam ci jamono yee ñu génn lam fa bàyyi woon ci ay kóllëre yoo xam ne day kóllëre yoo xam ne kóllëre yu sax la sëñ Yuusu mi nga xam moom moo ko fi wutu te sëñ Muntaxa samp ko fi kóllëre yooyu benn buñ ci bàyyi mu laa suuf du am te lu ci nekk dañ ko fas yéene yokk waaye fas ñu ko wàññi ndax lu ci nekk Seexul Xadiim moo tax ñu sos ko Seexul Xadiim moo taxoon ñu doon ko dox te kooku jug fi day ndono loo xamante ni nag day mel ni kenn ku ci ne sa wàll bu ñëwee da koy bay ba mu rafet boo demee ñi fi ñi xam ne lii lu mat a sàmm la lu mat a fonk la ñu wéylu ko kon day mel ni ànd la boo xam ne am na fu mu tàmbali waaye amul fu mu yem ndax lépp day sëriñ bi kon tey sëñ Youssou Diop moo ñu yónni woon man ak délégation bi nga xamante ne bii ñoo ànd ànd kook Baye Sey di mag ci daara ji ak sëñ Moussa Faye di mag ci daara ji ñu ànd man mu ñëw fekk fi waa Moukhaddamatoul Khidma ñoom sëñ Abdou Lahad Bousso ak ñoom sëñ Abdou Lahad Diop ak ñoom sëñ Bousso ngir ñëw indi sunu koogus ndox ngir bëgg ñu nangul ñu ko ci géej gi ñu yor ngir bu ëllëgee lépp lu ñu bëgg am ci ndox mun ko am kon ñun li ñu indi loolu lañ ko jàppee parce que kooku ndox daal gis ñu yor géej bëgg ñu nangul leen seen jëf moo tax ñu indi suñu participation ci lii nga xamante ne bii moom la ñuy def te muy loo xamante ne bii ku xam lislaam ku ne xam weeru koor ku ne xam na kenn la ci jihaat mooy joxe aw ñam ñoom nag lañ ciy def mel na ne sellaay ba ak matale gi ak charte yi ñu ci teg ngir mën cee am ndam ku ne xam na ne ku amul pas-pas dëgg doo ko ñemee song ndax xare gënu ko kawe ci lislaam mooy jël sa jël ñam di ko joxe ci weeru koor waxtu wala waxtu dog kon ñu ngi leen jaa jëfal bu baax ci coono yi leen masawu coono leen jaajëfal di leen xam ne lii ngeen di def seexul xadim ngeen koy defal moo tax ngeen mën ci am ndam bu ko sëñ bi nangutoon boo nga tàmbalee benn yoon du ñaar ndax ab coono kese kon yaakaar naa ne loolu ñëpp xam nañ ko moo tax fu tàll mën a nekk xelam ak xolam yëpp mi ngi fas yéene ànd ak yéen ci liggéey boobu ngir jàppale leen ko ba li ngeen ci bëgg ci ndam seen tuwaa dafa leen ko ñu ngi sant bu baax li jégalu bu baax ci kàddu yi jërë ngeen jëf. salaamaaleykum wa rahmatullah sëñ bi sàmm ñu ngi lay nuyu baax di nuyu mboolem ñi nga àndal jóge ci daayira Hizbut Tarqiyyah bi nga xam ne. sëriñ yu Youssou Diop moo nekk ci bopp ba ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di jiite ci nuyoo bi nag Cheikh Mamadou Mountakha mi toog a jotaay Cheikhul Khadim di ko ñaanal yàlla sunu borom yàggal ko fi te wéral ko te kàttanal ko bala mu yéene ci ñun mur yi yéene ko ci diine ci yéene ko ci réew mi yàlla sunu borom kàttanal ko ba mu yàggale ko te ñaan ko ak moom leen di jaajëfal bu baax. di rafetluwaat bu baax jéegu yi ngeen joxat yi ngeen doxati tey te yàgg ko dox seen diggante daayira Moukhaddamatoul Khidma ci lépp loo xam ne ak rafetal la lu jotal la waxtu nekk yéen a ngi ciy dox jéegu yu rafet ngir joxlante seen diggante daayira Moukhaddamatoul Khidma ci loolu doonul lu bees xam naa ñu bàyyi xel bu baax euh, sëriñ Atou Diagne bàyyi ko xel ci ñaan ci weeru tedd wii nga xam ne bu at yëpp mësaa ñëw ñëpp danañ yëng ne suñu aatu xam nga ne weer wi ñëw na daw toog daw nelaw daw noppalu ngir lépp suuxat ndigal li nga xam ne moom la sëriñ bi joxe ndigal loolee nag sëriñ bi joxe xanaa baax ak wut lu baax ak xer rek leen jàpp waaye yéen li ngeen nekk ñun ngeen fi nekkal ñu ne li nekk yéen lañ fi nekkal ci ndigal la loo xam ne sëriñ bi ko joxoon ñu di ko jëf jëf googee kenn ku ci nekk defe nga ne nekk sa morom fa nekkal te loolu mooy li wér. kon bu ngeen àndeek sëriñ Aatu ci àndin wu rafet diggante daayira Moukhaddamatoul Khidma ak Hizbut Tarqiyyah sëriñ Aatu jóge fi ngeen ko noonu wéyal loolee liggéey ba ba mu gën a rafet danañ leen ci gën a sant danañ leen ci gën a gërëm suñu xel tamit ak suñu yaakaar dana gën a dëgër ndax sëriñ Aatu dafa sori woon ci noonu moo ta gisoo keroog ba mu wàcc liggéey sëriñ bi wooñu wax ñu ñu àndaat dem ba ca denc denc ba jógewaat fi ñu àndaat ñëw sa sarax sa mu jàllaat ñu ñëw fa ni ngeen demee ni daayira Moukhaddamatoul Khidma mu demee ak Hizbut Tarqiyyah moo loolu ndaxte ay jamono dafa toll foo xam ne nit ñi mënuñoo ñàkk roofalante di liggéey te yéen yàlla dogal leen waxtu wu demee ñun ba ab liggéey boole ñu lépp dafay rafet ba mu jeex te la ko waral mooy da ngeen ciy jiital sëñ bi ñu jiital ci sëñ bi ba mujj du duutu leen ci gis lu dul sëñ bi ñu duñ ci gis lu dul sëñ bi kon nag ñu mel noonu boo ko amee ci ay mbooloo ñaanal leen ci yàggal leen yàlla yàggal leen fi dëgëral nag mooy la ca war ndax suñu diggante yéen moom ku ne xam na ne yàgg na te rafet na te waxtu nekk lu ngeen ci mën ci rafetal yéen na koy def noonu la ko suñu doon defee sëriñ Yuusu tamit bi ñëwee tànk yooyu la wax mu doon def daa ko def loo nam ma ko daa defee dinaa ko def ak ñi ko àndal luñ ci yokku duñ ko wàññi waaye yàlla mi kàttanal yàlla leen kàttanal ba saytaanu ba moom yoon ci seen diggante bu seytaan amu yoon ci mbooloo mi yàlla mi dogal di aar di muccal yal leen yàlla sàmm te aar leen ti defal ñu ko ba li sëñ bi yéene ci nun ñëpp ñu bokk am ko nga xam daal ci tuddaay moo xadamatu ma sëriñ Afiya bu su imaam mi nekk ci bopp bi ak sëñ laat bi su tele tëlib mi secrétaire général ak sëñ laay Diop at atien ak ñu fi teg ci jotaay bi yëpp sëriñ Jiili mi nga xam ne moo yore intig bi eh, intig bi ak yooyu yëpp nag ak kuréel yëpp nag laa wax ñu ngi leen di jotal seen i cant ak seen ngërëm ak seen ñaan te dina xamal ne bu ñu leen tëggatoon ba tamit xam nañu ne na ngeen ko daa defee nekkal ñu foofa loolu lañ ñu nekk. xam naa ren nag da ngeen ñoo nax ndax ñun ñoo daa njëkk ñëw rek ngeen gaaw njëkk a ñëw <laughs> ñun ñoo daa njëkk a ñëw waaye ñu nekk ci wàccaay fa ngeen njëkk a ñëw waaye loolu day tegtal na benn la rek. ni ci waajtaay ndax dañoo jàpp yéen ngi nekk foofu bu ñu toogee ba ak seet si leen bu ngeen toogee ba ak seet suñu ñu ngi ñaan nag liggéey nekk foofu yi nekk fii ak yi nekk si wuti yëpp yaa na ko sëriñ bi nangu te ndëpp ci ngërëmal sëriñ Tuubaa te yàlla bu ñu ci gis suñu bopp nañ ci gis suñu Tuubaa rek wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa